Vijana Gaito gi nga xam ne moom moo di ndawi Serigne Saliou di kuréel goo xam ne dañ koo taxawal ngir liggéeyal Serigne Saliou Mbacke jaarale ko ci doomam ji nga xam ne moomoo di Serigne Mourtada Mbacke kuréel gi nag bi ñu ko taxawalee ak léegi daanaka ci at rek lay tollu ñoo ngi nii ci dimanche ji nag dëppook le 27 juin kuréel gi fas yéene ànd dem ziyaare ji ki nga xam ne moom moo di Serigne Mourtada Mbacke bi ñetti waxtu jotee ci bëccëg di 15 heures mbooloom yépp dajaloo ci jumaa ji ci buntu kër Serigne Abdoul Ahad Mbacke ñu waaj ñoom ñëpp àndandoo def benn convoi daal di dem ca Ngaabu ngir yóbbu fa lim bu takk lool ci ciment ñu xayma ko ci fukki tonnes ak juróom. bismillaahi بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قد رم قلبي بالاقتداء لو سكاري بلا كفور وهو نذيري منه فدائي لو اغترابي بلا اغترابي لو اختابي مع اهتدائي لك رضائي لك ثنائي لك التجائي مع اجتدائي يا من زفاني يا من حماني أمن جفاني بمحو دائي أسبل جداري أسبل حموري كثير خياري بلا كداء يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في ذا النداء يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سف نهائي يا ذا الوحود يا ذا الوجود كلي بجودي بلا انتهاء صفي وصولي بلا غفول لي جد سؤال جم الرداء أبل تلاوة مع الحلاوة أبل دراية لدى الأداء أصلحت حالي بلا ارتحال بيد عيالي بلا بكاء liqbal mataabi wax mi janaabi wasum maabi jawit zakai inna la xaroora wa mal xuroora abli nu soora maatikai quli na wala uni kamala yaa man taala an surakai zitawdaya qutadaya lii béré daaya doona sikay yaa xayra mugni axna bi man ni alayhi usni bila xalaai laka sukoori inda duyoori yaa jal xosoori bila jalaai yaa man kasaani yaa man saqaani yaa man xamaani anil xalaai أنت مرادي أنت عمادي نوّر فؤادي يا ذا الضياء زهزد عيبي أذهبت ريبي دهرت جيبي كالأصفياء أنيت سيري تيبت ميري كني بخيري كالأتقياء يا خير محيي كني برعيي ba ñu àggee ci fi nga xam ne moom moo di ngaabu ñu wàcce fa ciment bi ci kër Serigne Mourtada bidil jamaali bidil kamaali bidil maali bidil dawaai bidil ibaada bidil ifaada bi xalqi aadali lawliyaai بذي النوال ليس القتال مرد الرجال الأسقياء بذي سعابة ذوي الإجابة جال الكآبة ذوي الدياء بذي وربي جال الكروب نور الأريب ما حرياء ذاك المنير ذاك البصير لهو أشير بذا الثناء لهو خطابي بلا عتاب ولا حجاب ولا عناء خير البرايا يا ذا المزايا يا ذا العتايا صف بنائي أنت سروري بلا غروري صف بروري نور فنائي فيك أقول ولا أعول فيك أقول بلا فناء أني جزاك ربنا داك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير حبي خير محبي بلا ارتداء إن القديم حيث قيمه ولا أري موزى لجدائي أنت مجيري من الغرور ومن غرور داعي سقائي سد مكاني زدت أماني هب لي زماني بذي البقاء أنت سلوكي إلى المليك ما حلوفك موت النقاء أنت الجميل لك أميل أنت الرسول بلا جراء لك لساني مع الجنان ولا أداني كالسعراء أنت السبيل بك الوصول لمن ينيل خير ثراء أذبت عري أذبت غيي قم درعيك الكبراء خير الأنام فيك قلامي بلا ملام بل برضائي يا ذا الجميل يا ذا الفضيلة أنت الوسيلة لذي القداء فيك سكوني إلى المتين بلا فتون ولا انقضاء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أثنى رجائي أجبت غمي مع عود ظلمي لي جد بعلمي داع نجائي أجبت فقري لي سند سري من غير مكري ولا هجاء زكيت نفسي فقد حبسي أذهبت لبسي ضد ختائي سند جاتي زد هباتي أبقيت ذاتي مع العطاء لك رجاعي مع جموعي بغير جوع ولا خطائي لك التفاتي يا ذا الصلات baada salaati maa sanaa'i anka radiitu bika nasiitu kama ganiitu anil anaa'i laka imtidaaxi yaa za salaaxi yaa dal falaaxi yaa dal ginaa'i fiika unaadi kullal bilaadi lijl ibaadi baanil gimaa'i ginnaaw bi la mbooloo mi bàyyee ko daal di dem ca Touba Jannatul Mahwa fekk fa Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Saliou ngir ziyaare ko mu nekk ziyaar bu kawe lool bila xatira bila kantima bi xotta janaabi bila wala habai yaa xira maaxi maxaajunaaxi kuréel gi ku ne xam na ne aljuma bu nekk dañuy jàng lim bu takk lool ci ay kaamil ci kër Serigne Mourtada Mbacke fi lañu daal di amalee jotaay boo xam ne laata ñuy ziyaara ci lañ jàng xatmu alquranul karim bi sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tahirin ajmain allahuma balliq sawaaba maa qara'naahu nuuruhu maa talawnaahu ilaa ruuxi sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam allahuma balliq sawaaba maa qara'naahu wa nuuruhu maa talawnaahu ilaa ruuxi sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam allahuma balliq sawaaba maa qaranaahu wa nuuruhu maa talawnaahu ilaa ruuxi sayidina muhammadin qaadimi rasul alayhi salaatu wasalaam wa ilaa arwaaxi ashaabihi radiallahu anhum ajmahin wa ilaa arwaaxi jamiici al anbiyaai wal awliyaai wal mursaliin wa ilaa arwaaxi aabaaina wa ummahaatina wa iqwaanina wa as wa asdiqaaina wa asattisaatina wa masaa'ixna xaasa wa ila arwaahi jamii almuminina walmuminaati walmuslimina walmuslimaati al ahyaa minhum wal amwaat ajmain haamatan wa ila jamii ashaabi alxayraati min almuminina walmuminaati allahuma anzur man nazara man nazara diin waaqsul man qasara almuslimin amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamu rahimin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke Sëriñ Saliou barke Sëriñ Murtala ginnaaw bi ñu jàngee xatmu alxuraanul karim bi ba noppi am na kàddu yoo xam ne bàyyeekoo na fa ci jëwrin yi ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Mourtada Mbacké. waa Daïra ndawi Serigne Saliou jug liggéey takku ànd booloo ngir liggéeyal sëriñ bi te yàlla rek tax ñu ñëwoon di jaayante ak Serigne bi ñu liggéey ba noppi ñu ñëw ngir Serigne bi ñaanal ñu te lépp luñ fi ñaan rek yàlla ñu Serigne bi defal tawfiix ak taysiir ci barkeb alxuraan ak xasida yi ci barkeb jaalibatu arañ ñoo koy dagaan ci sang mbaax sëriñ bi ñun ñii suñu bopp ñu ni ñoo ngi fasante ak yow coloré goo xam te ne si yàlla bu mu dakk yàlla na sax dakk ci barkeb alxuraan di ñaan rek nga ñaanal ñu Mbàkke ba liñ naal ci liggéey bii ni suñu borom def ñu matale ko ànd ko ak yow ba lépp loo ci sant ñu def ko loo ñu tere ñu bàyyi ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay ziar baax a baax a baax ci turu daayira ndaw yi sëriñ Saliou ñu nekk ci biir réew ak ci biti réew xanaa di yeesalaat suñu njëbal rek ci yow ndax ñun comme ñun la suñu borom dippee daayira ndaw yi sëriñ Saliou ñu jaayanteeg sëriñ Saliou jaare ko ci yow ak njabootu sëriñ Saliou gépp di wax ne ñi kat ay gune la yoo xam ne dañoo takku ngir liggéey sëriñ tubaa sëriñ Saliou ngir li sëriñ boo waxoon jox leen ma ndaw ñi fi mu toll nii ngi yaatu lool Mbacke te biñ fi njëkk a ñëwit lim bi néewoon na lool waaye Mbacke gis nañ ñaani bu baax ak taxawaay bi saa su rek yaa ngi ñuy nemmiku ci turu daayira ndawi Serigne Saliou te lépp lu ñu am tamit saa suñu rek gis la ba tax na moo taxoon bi ñu bi nga xam ne ñëw nañ ca ngaabu gis fa liggéey boobu ñu doon set setal ci la kenn ci ñoom daan ne war nañoo jël suñu ñaq def ko ci ngaabu te yàlla ak sëriñ bi rek tax ba tax na ñu tënkoon ci ay bureau ni daara mu toll ci fukki bureau ak juróom-benn bureau bu ci nekk am na ñaar fukki nit ak juróom jàpp fanweer ñu ne woon kenn ku ci ne li nga am saw ñaq te bëgg koo def ci ngaabu nga génne ko ñu yóbbu ko Cheikh Abdoul Mourtala ibnu Serigne Saliou sàkkuwu ko ci ñun laajuñu ko tamit waaye ñun ñoo bëgg jaayante ak sëriñ bi te mbake lii ñu jaayante muy fukki toni ciment ak juróom xeeb nañ ko lool ndax Serigne Saliou daan faral di wax ne jëf ju nangu rek boroom xeeb ko te mbake bu ñu jógee fii dañuy duggaat àll bi wutiwaat leneen lépp lu ñu yor Mbàkke yaa moom soxna yi tamit nga ñaan leen bu baax ay jàmbaarañ wër na borom Touba. pas-pas bi mate na ko sëkk waaye poos yi néewee na ko lool xol fees nga ci dell li nga xam ne yéene nañ ko li nekk suñ kanam moo ko ëpp foofu foofu soxna yi nga ñaanal leen suñu borom may ay borom kër yu baax yu nangoo liggéeyal sëriñ bi góor yàlla yi nag ñu nga xam ne yàlla dogal nañ ay tu tànk lan te ñekk ca place suñu borom di gën a yokk seen wërsëg fan nekk. ba heure bu ñu leen wooyee ci liggéeyub sëriñ bi ñu mën a am ñu ko jëfale ndax am nañ yéene liggéeyub sëriñ bi waaye lot nañ ci lool Mbàkke ñu lay dénkaat suñu bopp di gën a jooyal suñu cofeel ci yow ñun waa daayira ndawi sëriñ Saliou liggéey bii ñu fas yéene liggéeyal sëriñ bi jaaree ko sa jëmm ji Mbàkke nga ñaanal ñu ci ba yàlla bu ci saydaane am wàll waaw am nañ ci yéene lool am nañ ci yaakaar trop nag ndax bi ñu fi njëkkee ñëw ak nii ñu fi ñëwee wute na trop xeeb nañ ko lool lool lool lool waaw lépp rek ñu koy gën a feddali ak cofeel ci sa jëmm ji. lii lii ñu defit nag dañuy feddali rek ndax bi ñu njëkkee jaayante yow juróom benn téeméer la woon ak kaamil alxuraan ak kol waxtu wuñ fi ñëwee su fi yàlla dogalee lu wërsëg ba toll ci ay milliards lii mooy jiitu noonu lañ ko fas yéenee nga ñaanal ñu bu baax a baax a baax yéene ji ñu ñu ñu ko bëggee ñu ko bëggee waxee sax mënewuñ ko noonu ndax wax dëgg yàlla. bég nañ lool lool lool lool bég lool lool yàlla seere na ko. sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah waa daayira ndaw yi sëriñ Saliou sëriñ bi nee na moo ngi leen nuyu baax kenn ku ci nekk sa tuur ak sa sant. sëriñ bi nee na moo ngi am mbégte bu baax a baax ci seen taxawaay bi ji rafet la bu baax a baax a baax doxin wi ku ci nekk rek ak sab cër waaw mu ne day mel ni liggéey jumaa bi kon seenub cër la yàllaa leen ko jagleele ndax biñ ko tàmbalee ñu doog ñu di ko dooga a jox rek ci mu dajeeg seenum ñëw fi ngeen sàkku ceen ne bëgg ngeen àndak moom ci liggéey bi kon xëy na day mel ni loolu bu leen ci keneen jiituwoon it du ngeen mën a egsi ci loolu yi waaye kon bi ngeen ceemee ba noppi tànn ko kon loolu it day seenub cër te képp koo xam ne jublu ngaa liggéeyal sëriñ bi mu liggéey loola ci jumaa xamal na la liggéey loo na la ci lim gën a fonk ndax kër sëriñ Tuubaa moom léppam jaamu yàlla la te it jullit lim ko jararit ku ne xam na ko kuy julli ba julli ci géej li nga xam ne mu ëpp solo ci lim dénkaane muy jumaay Tuubaa ji kon fépp foo xamante si jumaa nekk na fa rek te nekk ci yoon wi rek day mel ni day dugg ci biir yoon wi te day mel ni day duggaat ci biir jumaay Tuubaa ji ndax kon daa batale woon ne dinañ ko liggéeyal jumaa ci Tuubaa kon fépp foo xam ne liggéey nañ fa jumaa rek day aju ci liggéeyal jumaay Tuubaa ji kon bu ñu leen joxee liggéeyu jumaa ji ngeen taxaw ko kon am ngeen li nga xam ne moom la sëriñ bi gën a taamu kon nag ngeen gën koo jàpp te gën koo fonk ginnaaw dangeen a bëgg a liggéeyal sëriñ bi am ngeen ko am ngeen lu ngeen mën a liggéeyal sëriñ bi ndax nit jóg na di wut lu baax ndax nee na nit jóg na li di wut lu baax daje koo xam ne da ko yóbbu ca safaan ba kon li ngeen nekk ni xëy na nit mënta wërta mën a naagu waaye njort mën na ci am bu baax a baax kon nag ngeen gën koo jàpp te gën koo fonk bu baax a baax a baax ndax liggéey bi moom yemut ci lii rek ndax yeneen i liggéey ngi fi ndax fa ngeen jóge nii rek loola tegtal la fi te loolu benn la ci yenn daar yi te yeneen daar yi am na ay liggéey yu fa nekk te fa liggéey ba gën a ëppee gën a yaatu kon nag ngeen xam ne bu baax sas wi yaatu na liggéey bi it bari na lool. te ngeen jàpp ne lu ngeen wax li ngeen waxoon rek li ngeen def lu ne lu ngeen ci def rek ni ngeen ko xeeb te waajal lu ëpp loola te képp koo xam ne xas nga jaayante ak taalib moom doon rek nga war a def ñu gën a góorgóorlu te gën a farluwaat bu baax a baax ndax euh, sëriñ bi defal ñu ci ndimbal ak tawféex bu baax a baax ba liñ ci yéene yàlla defal ñu ci lu faaxu suñ jort nee na moo ngi santaan ñëpp tey gërëm ñëpp kàddu yi rek la woon nee na bi comme ndaw yi sëñ Saliou la ko tudde woon nee na dafa bëgg ñu tuddee ko tasawudu si xaar ginnaaw ay ndaw ngeen te sëriñ bi def na téere bu tudd noonu kon nag nee na na ngeen barkeelu ci tur woowu rek nag sëriñ bi nee na kon bis ñu tey jox na leen aw tur tuddee leen tusaw du zixaar waaw nag jamono yi fi njëkkee ñëw yéen ko doon sàkku ba ngeen ko ko laajee nee na na ma ci déglu comme bi mu ko dikkalee nag jot ngeen ci. tasu du si xaar moom yaakaar naa ñi ñi joto a gëstu xam nañ lami muy la muy la muy la sëñ xaadim mi yooyu yóbbul ndaw ñi comme ne da nekk ci liggéeyu sëriñ bi ñu tudd leen tasu si xaar seen xel war naa dal bu baax a baax mhm. da ngeen gën a góorgóorlu lu baax a baax ci liggéey bi wax ah, na ngeen jëf li seen bopp buub ak root bari waa ne ko sëriñ bi bëgg a dimbali ci la lay jaarale maanaam yóbbu nit ki ci ci góor yàlla yi buub ak root moo ci gën a gaaw gannaaw loolu yéen féetale ngeen si bopp ci lool ci buub ak di root loola la ngeen ci am pësteef maam nii la ko sëriñ bi waxee rek tur boobu la tudd nag maam tasawur istixaar moom moo ndaw ñi ginnaaw ndaw yi sëriñ Saliou ngeen mu tudd leen tasawur istixaar lépp yàgg na kon <laughs> ginnaaw bi ñu ziara Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne saaliw mu nekk ziar bu kawe lool mbooloo mi yépp amaat mbégte jàjjuwaat dolleekuwaat rawatina soññe yu am solo yi nga xam ne bàyyeekoo na ci jotaay bi amal nañ fa benn jotaay boo xam ne jëwriñ yi nga xam ne ñoom ñoo jiitee liggéey bi leeral nañ kuréel gi nga xam ne moo di ndawi Serigne Saliou ni nga xam ne noonu lay doxee. ci fàttali kuréel gi ñu ngi liggéey liggéey yu am solo jagleel ko Serigne Saliou Mbacke jaarale ko ci ki nga xam ne moo di sëriñ Mourtada Mbacke mii di doomam ndax kuréel gi sax aljuma bu nekk ñoom ñooy seetal jumaay sëriñ Saliou ji nga xam ne moo nekkee janatu boole ci ay limu kaamil takk yoo xam ne dañu koy jàng. yaa xayra waam yaa xayra raa'i yaa xayra daa'i li di samaa'i salla alayka bi man ladayka musnin alayka inda rimaa'i alayka a'uuzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jaare di jiital ci nuyoo beeg jaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér di jaare suñu bunt ci biir kër Serigne Saliou muy Cheikh Mamadou Moutala ibnu Serigne Saliou ak njabaruk Serigne Saliou gépp di ñaanal kilifa diine ak kilifa aada yi yàlla na fi ñëpp yàgg ci barke borom Touba. ñi ngi ci kàddu gi nag ak Cheikh la Lamine Bara bu daayira ndawi Serigne Saliou ñu ñëwoon fii tey ci janatu ci kër Cheikh Mamadou Moutala ibnu Serigne Saliou waaye njëkk ko fee ca Ngaabu doon fa yóbbu suñu addiya ndax ku ne xam ne le 27 décembre la ñuy jaare Cheikh Modou la waaye lii mbokk taalibe yi ñoo toog xalaat ne rek war nañoo dugal suñu njàq ci suufu ngaabu bi nga xamee ne xalaat nañ ko tamit ñi ci biir réew ak ñi ci biti réew di jaare waa zone Dakar baax a baax a baax gis nañ seen taxawaay ak ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew daanaka duñ ci tudd kenn ñuy ay jàmbaari Serigne Saliou fa ñu nekk saa su ne rek ñoo ngi leen di fasaale ci liggéey bi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo ko bokk ndax daayira ndawi Serigne Saliou moom nii rek lay doxee ki ci gën a nekk xale ba ki ci gën a nekk mag ñëpp ñoo ci yam ndax ku baax ki dafa daan faral di wax ne du ma jaawale jëfi kenn ak moroomam te jëf ju ne xam naa fayam kon ba tax na ndawi Serigne Saliou jaayante woon ab limu ton ci ciment yóbbu ko feete ngaabu ngir dafa am mag mu baax mos wax ne ëllëg yomal xiyaamati akbar bu dee ñi daan jël seen ñaq di ko def ci bâtiment yi ëllëg birig yooyu ñoo leen gàttoon di leen dugal àjjana. ba tax ndawi Serigne Saliou rafet seen njort ñoom itam yóbbu ko suufu ngaab bi nga xam ne Serigne Saliou ñaan na fa Cheikh Abdoul Moutala ñaan na fa njaboot Serigne Saliou gépp ñaan nañ fa. ba tax ndawi Serigne Saliou nii rek la ñuy ànd ñoom mooy dañoo bëgg a marqué suñu empreinte biir kër Serigne Saliou créé wuñ ab group ngir dugg audio dem fii dikk fii dañoo jël say wi nga xam ne moom la mag ñi àndawoon ak Serigne Touba ñoom maam Thierno Ibra Fati ñoom maam Mor Diarra magi mag Serigne Abdourahmane Lo ak mag ñi ko daroon ñun foofu la ñu teg suñu bët bëgg faa àgg te ni ñu fay àgg nag mooy defuñu lenn loo xam si ne jublu na si ay caaxaan ni nga gisee mbooloo mi nii ñi ci bëri ñibbi tamit ñi nga xam ne tey waa Touba ñoo fi nekk ak ñenn ñi jóge ci ñëw fukki régions yi ak ñeent yëpp am nañ fa ay élément ndawi Serigne Saliou ba ci diaspora bi ba ci Guinée am nañ fa élément ndawi Serigne Saliou waaye ni ñu àndee rek mooy lenn suñu liggéey bii xaajaluñ ci lenn lu dul Serigne Touba Serigne Saliou moom rek lañ ci mën a ñàkk ku ci tàbbi tamit ni nga ciy tàbbee mooy joxe sa addiya dagg sa carte membre bi nga xam ne mooy tax nga bokk ci daara ji waaye këriwuñ ab groupe da nga ñëw ñu ajouté la ñun doxuñu dox woowu kii dox mënta ànd ak ki toog wala kon doxin wa du rafet nii la ñuy ànd te nii la ñuy doxee di jaare tamit biir kër Serigne Saliou suñu alaaji bu sa malaaka ndax biñ ne cëpp suñ suñ suñu tànk biir kër Serigne Saliou mu dalal ñu sax xay ga boobu la ñuy rafet njort ni mu daan ànd ak Serigne saa sune ñu jëkke fa ñëw ci Cheikh Amadou Moutala nga xam ne bi ñuy njëkk gisante ak moom fii ci jannatu kaamil alxuraan lañ ko jox ak juróom-benni téeméer tey ji indi nañ fi ay tondu yoo xam ne si ne moo jërul ñuy tudd tim bi waaye indi nañ li nga xam ne moom la ñu jaayante commencé ko ak moom ba ci fépp foo xam ne Serigne Saliou Mbacké daan nafa taxaw ñu ndawi Serigne Saliou bëgg nañ fa amal ab taxaw te ku ci bokk ci daayira bi xam nga ni mi doxee ku ci toog ñaari weer ba ñett joxewu at yi dañ lay génnee daara ji ñun moom façon boobu la ñuy doxee amul jëwriñ amul sëñ baara amul sëñ keneen ak keneen te tamit defuñu comme ni gars def ni ay ñun nekkuñ ci ay ensemble général ak ay wàccee kii poste mag ñi kenn daanu leen wàccee maam Cheikh Rafal bi mu ñëw ci sëñ Touba fa ñëwee ñeent fukkee la doon xoola cër bi am ci sëñ Touba kon ñun noonu la ñuy doxee doxuñu ci nañ wàccee jëwriñ Moussa wala soxna Rama da ngay nekk ci poste kay dem ba bàyyi sa tànk benn tu tànk jóge fee roofu la dem yoonam doxin woowu la ñuy dox ba tax na ñoo ngi sant ñëpp di gërëm di jaare jëwriñ Moussa Mbaye bu baax a baax nga xam ne daanaka moom léppam daf koo jël rek teg ko ci ndawi Serigne Saliou boo gisee ci biir sax da nga naan kii du jëwriñ te wallaahi laxasim yi bu ne woon duñ def lii duñ ko def nun noonu la ñuy àndee di sant bu baax nag ki nga xam ne si ne mooy euh, site bi nga xam ne moom lañu àndal muy Serigne Cheikh moom itam muy jàmbaar lool nga xam ne daanaka ci ngoon ba léegi mi ngi ànd ak ñun di ko ñaanal suñu borom yàlla na raw ci sit yi gën a mag. di wax ne ndawi Serigne Saliou ñu ngi waajal genn safar goo xam ne ni ñu ko defee woon daaw lañ koy defewaat ren muy daaw dañ koo def ci jënd ay sase ndox yu bëri taxaw buntu gaas Dakar bu njëkk ba bépp jàmbaari Serigne tubaay yi jóge ci régions yi bu ñëwee ñu dugg jox leen ndox jox leen ñu añ te xam ne ren lay gën a raw lii ñu defal fii tak ci biir kër Serigne Saliou dañuy tourné waat leneen amuñu benn temps bu ñuy taxaw ñi ngi waajal safar gi di waajal xelkom am nañ ay bureau yoo xam ne ñoo jëm xelkom fi mu toll nii may wax bu ñu wootoon xelkom pare nañ pour dem kon daara ndawi Serigne Saliou képp ko bëgg a tàbbi ci liggéey bi kaa ñu ànd ak liggéeyal Serigne tubaa Serigne Saliou xam naa dañuy jox jëriñ Moussa rek mu sànci ay kàddu wala soxna Rama mi nga xam ne moo fi teewal soxna yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah sama mbokku taalibe yi ngi leen di ziar te di leen màggal di tuub bu baax a baax nag ci kàddu yi daldi ne lott nañ ci lool ndaxte jëwriñ ñu teg sax matewuñ ko soxna Ramatulaay Seen la di jëwriñu soxna yi ci daayira ndaw Serigne Saliou kàddu yi nag dina néew ndaxte kàddu cant la ak ngërëm jëmale ko ci daara ji ndax gis nañ daara ji bi mu taxawee daanaka yàggul mais gis nga liñ fi def yëpp rawatina ñoo ngi ñaanal Serigne Mourtada mu Serigne Saliou mu yàgg fi lool te ànd ak weex ñoo ngi tubb bu baax. auzu billaahi mina seytaani rajiim bisimilah rahmaani rahiim barke borom Touba barke maam Serigne Fall ñoo ngi ziar di nuyu xalifatu am Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ak mboolem njaboot Serigne bi di ñaanal Serigne Cheikh Jëmm Fall waaye di ñaanal suñu buntu Serigne Saliou Serigne Moutalla moom Serigne Saliou ndongo li di wax ak yéen Moussa Mbaye bu daayira tasandu sixaar bu ndawi Serigne Saliou mu mel ni euh, liñ fi lin fi taxawoon a ñëw mooy joxe addiya addiya dafa bokk ci yoon wi di loo xam ne nii suñuy suñuy suñuy suñu mag ña fa ña fi newoon daan ànd ak sëriñ bi noonu noonu la daan doxee sëriñ bi fépp fu sëriñ bi masa nekk fekk fekk nañ ko fa jox ko addiya boobu la gënoon a boobu la gënoon a jafe boobu la gënoon a metti te ñun sëriñ bi laaju ñu bakkan alal rek la la ñu laaj kon ban xamee loolu boobu lañ jug takkatoo doon benn fa yéenee liggéey sa sëriñ bi ci lan sunu ñaq ànd ko nag ak mboolem ñi nga xam ne nii ñoo nekk si biir réew mi ak ak bitim réew mu mel ni nag daara ji ni muy faral di ni faral di doxee mooy am na am nay biro bureau yi ñu ngi ko tënk si biro bureau un am na si am na si bureau yoo xam ne ñoom ñoo yor wàllum jàngum alxuraan bi chaque un mois ñu wàcce fi lu tolloog juróomi kaamil wala juróom-benn eh, jumaa ji ngeen di gis suñu ginnaaw moom lañu Serigne Serigne Moutala moom Serigne Sall jox ndigal chaque ajjuma ñu ñii nga xam ni ñoo taxaw fii di présenté wu ñoo koy ñoo koy ñoo koy seetal nga xam ne loolu tamit ab cër la boo xam ne nii am nañ ko si biir liggéey bi kon comme li ñu Serigne bi wax rek indi ñu liggéey bi nag yaatu na. ndax am na daara daara yoo xam ne tamit war nañ faa feeñal suñu yéene kon lii ab ab tàmbale la boo xam ne nii daanaka defagul lenn nan gën a takkuwaat bu baax a baax te te gën a xamaan li na am mooy lan ndax liggéey sëriñ bi kat yoo yombul liggéey si sëriñ bi nag yomb na waaye si sëriñ bi liggéey loola moom moo yombul waaye nag eh, ndokka ñun bañ ñëwee sëriñ bi ubbil ñu eh, ba nga xam ne nii lépp lu nu laal ñu am si te tawfeex loolu nag ñu koy sant sëriñ Saliou waaw heure bi daaw taxawagul yaakaar naa yaakaar naa daara ji mi ngi doog am at mi ngi doog am un an kon loolu ak sant la bu baaxa baax te te tey ji fépp foo fépp foo mën di toll boo nee eh, daara ndawi Serigne Saliou ñëpp xam nañ ko lu toll si 500 personnes ñu ngi ci biir waaye nag yamu ci réew mi kase fii ba bitim réew fépp foo mën a nekk yow mbokk mi nga xam ne yaa ngi may dégg te te bëgg bëgg see tab bi fépp foo mën a nekk man nga man nga see bokk waaw lépp loo xam ne nii nag moom la ni euh, bëgg ci liggéey bi mooy àndandoo takkatoo doon benn liggéeyal liggéeyal si sëriñ bi. kon ñoo ngi santaat bu baax a baax a baax sëñ Moutalla moom sëriñ Saliou di ko ñaanal mu yàgg fi tan tam àgg ta àggale tan ànd ak moom liggéey bi. di ñaanal mboolem soxna yi ñu si biir daara ji ak mboolem góor yàlla yi ak mboolem ñi nga xam ne nii ñi ngi ñi ngi si biir réew ak bitim réew di sant ñëpp di sant bu baax si site bi. ñu ngi sant baax waa société internet bi ñoom it ba tey ñi ngi ànd ñu li liggéey bi te euh, tàyyiwuñ benn yoon ñu ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom yi yokk seen i xéewal ban ban bu ñu leen di dégg fu ne ñoom it ci barke borom Touba. kon képp koo xam ne nii dugaloon nga sa addiya euh, ñu ngi lay ñaanal balaa balaa déwén yàlla na ko sëriñ bi ful mu doon ay ay milliards ay milliards milliards ba bu ñu ñëw fii euh, jox sëriñ bi ay toni toni ciment. bureau 1 ba bureau 16 bureau yëpp ñoo ngi leen di sant te di leen gërëm te ñaanal ñëpp jàmm ci barke borom Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.